waaw léegi dafa am loo xam ne ñun dañu ko dañu ko miin di ko def ci bési bési ashura boo demee ci téere bu ñuy wax naatul bidayat taw tawsif nihayat cheikh maawul aynayni ibnu cheikh Mouhamad Fadal ibnu Mamin alqalqami moo ko taalif muy shérif cheikh Maawul Aynayni ak cheikh na cheikh Saadu Abihi su turando ñoo bokk bàyyi te bokkuñu ndey moo taalif téere bi mu ngi nii téere bi mu ngi nii mooy mooy bi ci suuf naatul bidaayaat lii mu wax nii gis nañu ne mag boroom xam-xami réew mi yépp wax nañu ko ci seeni téere ñu tàmbalee ci ñoom Cheikh Omar maam Alaaji Abdullah Sidi Xaaji Malik Cheikh Ahmadou Bamba am na téere bu ñuy wax Majmaun Nuurayni fi fawaidi daarayni indi na ci lii léegi nag ñun Sénégal tele boo ubbi rajo boo ubbi ñu ngi naan yi ñuy def ci tamxarit ay bidaa la du dëgg te ñii ñoom ñoo ko wax mu am benn point bu jar a leeral mooy ak tarku laysa bi dalil maanaam yonentu yàlla muhammad defut nangam firiwut ne nangam jooja baaxut wala kenn waru koo def lislaam li ñu yonentu wax wa ma ataakum rasul fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lislaam dafa am ay qawaid dafa am ay fondement yu ñu koy tabaxe mooy li yàlla li yonentu digle ak lim tere mais li nga xam ne yonent bi daf ci noppi mbaa li nga xam ne yonent bi defu ko loola firiwut ne baaxut loolu dafa war a leer mais yonentu defu ko rek bëri na fi lu yonentu bi defut te ñu ngi koy def bëri na lu yonentu defut te saxaaba yi def ko bëri na lu yonentu bi defut taabiina yi def ko te loola kenn du ne lii bokkut ci diine ji te loolu mënoon naa cee lim lu bëree bëri muy ben kon lulu ñu bëgg a ba lañ ko dàq nañu sét ndax li ñuy dàq lu bon laam lu bax la bu dé lu bon la ñu dàq ko ndax l'islam nangu lu bon waye bu dé lu bax la nañ ko saxal du deug lolu indil ma ci ba ashura daf ne fi ashura ashrun tattasil بها اثنتان ولها فضل النقي صم صل صل زر عالما عد واكتحل راس اليتيم امسح تصدق واغتسل وسع على العيال قلم غفرا وسورة الإخلاص ألفا تقرأ لي mooy li ñuy def ci bés يعني tamxarit yaa ne bés yi moom lañ tey def te am na ngëneel lu ñu toxal benn bi mooy suum dinaa delsi ci moom mooy wooral salli mooy na nga julli julli gi nag ñeenti ràkk lay doon ràkk bu ne nga jàng ca fatiha benn yoon suratul ixlaas fukk ak juróom benn wala fukk ak benn loolu ngay def ci ñeenti rakka yi ñu ne ku ko def yàlla dana la jéggal bàkkaaru juróom fukki at yi passé ak bàkkaaru juróom fukki at yu ñëw mais lii dëgg la am du dëgg teen koo def rek boo ko defut lu mu la boo ko boo ko defee lu mu la yàqal julli moom julli julli bonut jàngakul wallaahu ahad bon na léegi nag te yàlla ak a bëri ngëneel bu fekkente ne sax lii wérut yow nga def ko ci yaakaar ne wér na mais man nga ko def yàlla may la ko ndax yàlla mënu koo maye waaw kon lii weddi ko par ban pour pour pour lan la te comme ñi ko wax waxul ñu yonentu moo ko wax waxuñu ne xadis bu wér la wala dañu ne rek nañ ko def léegi ndax yàlla amul lu ñu tudde ilham te yenkewal ay jaamam ab jaamam boo xam ne du yonentu du saxaaba yàlla woon ko ngëneel loo xam ne ci biir li yonentu bi indi la lañ koy tibbe loolu mooy ilham kon loolu bu ñu sonal ci ne li nangam lii nangam lii nangam Hmm? sum salli julli noonu ràkk yi daal noonu la koy jullee dégg nga beneen bi ci des moo di euh, zur aaliman nga dem ziyaare ji borom xam-xam ci bés bi bëgg nañ nga ziyaare ci borom xam-xam dem ziyaare imaam wala sëriñ wala muy ñett ziyaare borom xam-xam kay baax na bës bu tedd nga dem ziaré ci borom xam-xam mu yok la ci wax la ci ngeneel yi yok la loolu lu ci ne loolu defe naa ayut ut séti ku feebar séti ku feebar tiyabu ju bëree ngi ci di nga def ko ci bës bu rafet gën ta baax waxtaxil na nga tusngalu tusngal boba ciosan bi moy nit yonent yalla no yi bi nekké ci gal gi biñu waccé seen bët yi seen seen kaw dafa xawa melni lu am ay las takalo ñu jël tusngal tusngal seen bët yi léegi nag ñu ne képp koo xam ne yaa ngi tusngalu ci bés boobu yàlla mën na laa musal ci silmaxa mais yàlla man na laa musal ci wànnente sax ci àdduna tusngalu moom aayul ba tey nga raay bopp jirim nga génne sarax nga sangu maanaa nga nga sañse daal sol lu rafet sangu sol lu rafet nga yaatalal sa njaboot mooy nga jox leen ci bés boobu bégal leen ñu lekk ba suur nga nga bégloo leen nga dagg say we nga jàng saaru ixlaas junni yoon lii lañu wax ne euh, moom lañ ci war a def saalihiina yi ñoom lii lañ digle woon pour nga def ko ci bésu tamxarit bu ko defee nag loolu maa ngi leen di wax ne bu ko kenn bàyyi def leen ko ndax ñii ko wax nii ñu yeewu lañ ñu xam lañ zahir xam baatin am cër ci yàlla bu ko def nag ci turu ci anamu ne li ñu lay tere rek mooy nga def ko ci anamu ne dafa war wala nga def ko ci anamu ne yonent bi daf koo digle waaye def ko daal ci anamu ne digle nañ ko te ñu baax ñi ñoo ko digle yaa ngi dégg moo xam ci yonentu lañ ko jële ci ay nelaw moo xam yàllaa leen ko yenke wal moo xam fañ ko jële bu boobaa man xallata aaliman laqiya allaha saliman waaye daal nekkul lu aay jaamoo ko sa ñaanu tam xarit gi mooy xasbiya allahu wa niamal wakiilu niamal mawla wa niamal nasir dégg nga nga daal di koy jàng juróom-ñaar fukki yoon boo yeggalee nga ne dégg nga subhanallahi mil al mizani wa muntaha al ilmi wa mablagha al rida wa zinat al arshi la malja wala manja min allahi illa ilayhi subhanallahi adada al shafi والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين لا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبينا خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين كوكو دي موي نيانو تخا بوكو ko defee نيان جي ايتام wax nañ ne képp ku ko def doo dee ci at moom boo reppee doo ko mën a def dégg nga kon nag ku man defal boo ko manut li tax ñu bëgg nga am sëriñ bu demal ci moom ku heure ba jotee nga dem def ak koog moom wala nga def koog sa njaboot et cetera aslu ñaan ji loolu la waaye daal xam naa ne lu aayul de baat yi ci ne ay sàbbaal yàlla yu màgg la te sàbbaal yàlla day tax a gudd fan tasbihaat day tax a gudd fan dégg kon euh, lii mooy li ñuy wax ñaanu tam xarit loolu loolu mooy ñaan bi wax naa leen ko du leer na waaw ah, bu ko defee nag euh, loolu bokk na ci ci ci liñ fa a def beneen bi ci des mooy Euh, bésu tamxarit loolu mbiri mbiri Cheikh na Ahmad Tidiane la euh, Seydi Ali Harazim moo amoon benn mashhad am ku ko wax juróom fukki ngëneel ci laqad jaakum benn benn jaamu yàlla malaaka la feeñu ko di ko wax ne ko laqad jaakum juróom fukki ngëneel am na ci biir juróom fukki ngëneele benn ba mooy képp ku jàng laqad jaakum junni yoon ci bësu tam xarit junni yàlla dana faj sa aju yëpp yombal sa mbir yëpp jaakum nag day aare moom it day sabab gudd fan laqad jaakum képp ku xëy jàng ko doo dee ci bés moom it jenn góor dund na téeméeri ak ñaar fukk bés bu set mu koy jàng laqad jaakum genn guddi benn xaatif ne ko waaw bakkañ kañ nag ngay daw dee nag mu xëy ne ah, naa naa naa jàpp ci yàlla mu koy bañ a jàng laqad jaakum bi bi laa bi jant di laata sama faatu mag ñi kuñ jundoon soldaar ngay dem ci tubaab yi dañ lay jàngloo laqad jaakum mag ñu ngi daan wax ngeen bara ngeen bara maanaam xam nga baraatu saaru baraatu fala fala nekk ngeen bara dégg nga maanaam am na ci benn sama benn maam bu nekkoon ca armée ba mu ngi nettali nee na bi bal tàkkee ci biir ger bi mu ngi naan waaw ku may fàttali ngeen bara waay <laughs> ngeen bara mooy la xat jaaku nga kon loolu nga jàng ci junni yoon defe naa la loolu mooy la xat jaaku buñ jógee foofu beneen beneen beneen kayfiya boobu it ci Cheikh Ibrahim la jóge mais ci Cheikh Ahmed Tidiane muy fabtaxu inda allahi risq nga nga adat ko boo ko adatee mu lay jox mille neuf cent nga def lim boobu ci laqat jaaw boobu nag moom képp ku koy def ci bosu tam xarit insha allahu taala yàlla dina la may loo xam ne at moo ko defee at mooma la nga ca am mooy ëpp li nga am ci at yi weesu surtout ci laqad jaakum mille neuf cent bu dee mbooloo mu mel nii la mën nañoo daje def ko séddoo ku farlu it def ko baax kon nga gis ne ñaari dog la benn bi junni la day dem booram beneen bi junni ak juróom-ñeent téeméer ak fukk ak juróom-ñett boobu day dox yoonu boppam dégg ko bokkul ak junni xul wallaahu ahad ñaal ku ko man jàng junni xul wallaahu ahad bon na saar woo xam ne yonent nee na foo ko jàngi ñetti yoon mel nga ni ko wàcce kaamil boo ci defee junni ñaat tiyaabu nga am waaw nit ñi du ñu dimbale nit ñi ngir yàlla bàyyi leen boobu <laughs> yow kay bu dee xam nga li problème bi mooy am na ñoo xam ne nga jàngale loon téeméeri qul wallahu ahad sax dafa diis ci ñoom leen di déranger duñu la yazkuruna illa qal ay naafeq la yàlla nee na naafeq du tudd yàlla lu lu néew waaw léegi nag ku du tudd yàlla moo Cheikh Ibrahim Niass waxoon ne nahnu fi azkar wa hum fi inkar mu ñun ñu ngi ci sikkar yi ñu ngi ci diingat yi nuhibbu allaha wa rasulahu wa nuhibbu salihin wa يبغضون الصالحين وينكرونهم ويرجون بذلك الجنة ثم نرى من يرزقه الله الجنة mu ne ñun bëgg nañ yàlla bëgg yenentu bi bëgg nit ñu baax ñi yaakaar ci mbëggeel googu àjjana ñoom ñu noonu nit yàlla yi di leen diingat di leen wax lu ñaaw ñu yaakaar ne seen diingat googu ci la ñu amee aljanna léegi nag bu ñu paree ñu seet borom àjjana ku mu jox àjjana radiyallahu anhu bàyyi moo wax loolu deng nga kon euh, loolu loolu loolu loolu lu ki la li nga xamne mom lañ bëgg dekkal ci nopp nit ñi naan bésu tam xarit dañ ci rayon hussein euh, mana rafidhi muy ji koy wax ñu ne képp ku ci togg reer dafa mel ni da ngay feetu ci rey gi ñu rey Xuseynu nangam nangam loolu itam dafa uute ak li am dafa uute ak li am maanaa euh, togg reer googu ak yaatal googu nekkul ne euh, ginnaaw bi ñu reyee Xuseynu la commencé ci lislaam loolu jiitu na mais ñiy weddi loolu muskila bi mooy ibnu taymiyata mooy